Très bien. Euh, Yatma Guissé, le président de l'UNCS Thiès, l'Union nationale des consommateurs de Sénégal, section régionale bu Thiès. mu mel ni jafe-jafe yi bëri na mhm. euh, ci wàllu consommation yi donte ni yokk wàññi bi yokk bi amoon na coow yu bëri wàññi bi ñenn ñi ne li ñu la rek du lu bëri. Euh, tey ñu gis tamit yeneen jafe-jafe retraité yi ñu gis situation yi xaw nañu ñu jaxasoo yéen en tant que SOS consommateur mel lan moo ci seen kàddu ak seen taxawaay. waa jërëjëf Umar tey ni nga ko waxee noonu la mbir mi demee defe naa ne tey kenn ku nekk gis na ni yokk yokk yi tey bari na metti na aussi ci askan wi euh, wax dëgg yàlla defe naa ni altine passé la ñu dem réunion conseil régional de la consommation alors pour fixer euh, les derniers prix yi nga xam ne moom la ñu mujj a fixé alors euh, pour alors euh, mbirum ceeb bi ak dëwlin bi ak suukar bi defe naa ni ñetti article yooyu rek la ñu amoon loo xam ni euh, dañu ko waroon fixé waaw en présence du gouverneur de la région et le chef de service du commerce waaw a ah, loolu nag bi mu amee acteurs yëpp ñu nga foon waa ko waa yaa nga foon représenté boutiquiers yi aussi ñu nga foon représenter ak ay organisme yeneen yu bari hmm, muy ni nga ko waxee ñu demee ne SOS consommateur ASCOSEN ñoo ñëpp ñu nga foon ak UNCS bi nga xam ne moom laa jiite waaw léegi nag euh, bi nu waxtaanee ba nu fixer prix yi vraiment nekk na loo xam ni daal wax dëgg yàlla euh, ni nu ko xalaate woon nun ak ni nu ko séentoo woon ak ni mu demee wute na ndax bari na jafe-jafe ndax bu ñu demee ba alors suukar bi tey ñu ne dañ ko fixé waat 600 francs le kilo muy sucre cristallisé bi Euh, ni loolu wàññi nañ ko vraiment defe naa ne dañu dellu siwaat ci prix yi nga fi yi nga xam ne ñoo fi nekkoon rek en 2020 wala en 2000 ba 2021 parce que alors euh, riz brisé non parfumé bi tamit ñi ngi ko deux fixé 290 hmm? xam nga 290 francs boo ko waxee ni moom la ñu fixé kilo ceeb man nga ne 300 la rek ndax ñaar dërëm moom defe naa ne amatul waaw boo dee huile euh, bi nga xam ni mooy huile bi nga xam ni moom la ñuy si Sine Or Hmm? alors dëwlin boobu ñu fixe litre bi à mille cent cinquante francs te dëwlin boobu bërki démb deux mille dix huit deux mille dix neuf mu ngi doon jar mille francs gën gaa cher tey jii alors loolu prix lañ fi fixé ñun nag ñu jàpp ni xëy na peut-être ñoom ni ñuy waxee hmm, ci ni fret bi dafay yéeg ak les cours mondiaux à chaque fois euh, bu yu mel ni amee ah état ñoom foofu la ñuy sukkandiku ni xëy na peut-être ak Covid bi ñu jógee moo tax prix yi yéeg. waaye dañuy man di wax ni prix yi moom euh, ndiin dañu wàññi gis nañ ni prix yi daal waxuma wàññi waaye dafa yéeg dafa yéeg kon ba léegi jàpp nañ ni yaakaaroon nañ ni altine ba léegi bi ñu ko fixé dina am sax vraiment loo xam ni ña fa nekkoon muy commerçant yi dinañu accepter prix yooyu mais gis nañ ni ba léegi prix yooyu affecté wuñ euh, accepté wuñ ko ndax boo demee tey ci marché bi ba tey euh, suukar bi ñu ngi jaayee kilo bi 700 au lieu de 600 li ci ëpp nanguwuñ ko wàññi. boo demee ceeb bi la même chose même riz américain bi newoon nañu trois cent cinquante francs lañ koy jaayee waaye ba tey ji boo demee alors ci biir marché bi ñu ngi koy jaay quatre cent loolu ko prix brisé non parfumé bi ñu ne woon six cent quatre vingt du ci benn prix boo xam ne daal fixé nañ ko boo xam ne gis nañ marché bi alors vraiment respecté na ko ministère du daan ci veillé est-ce que waaw mais xam nga loolu bañ ko waxee dañ leen woon nañu wut ay tableau prix fixé ko ci boutique yi comme ça bu ñu fixé euh, tableau yi boutique bu nekk ñu man ko fa taf askan wi man a comprendre bu nu ñëwee gis ni que taf na nañu prix yi lii la bu booba yaakaar naa ne askan wi xëy na duñu am problème mais taf boobu ba tey gisuñu ko. waaw parce que aussi direction du commerce boo ñëwee agent yi nga xam ne ñoo nekk ci biir terrain bi aussi da nga naan ñaar wala ñett ñooñu aussi defe naa ne mënuñoo wër Thiès yëpp boutique bu ne ñu dem man faa taf un prix wala alors dégg loolu du yomb mën ta yomb waaw donc loolu daal corps de contrôle vraiment seen liggéey vraiment mënuñoo fexe ba matal ko pour que euh, commerçant yi mën a respecter les prix la consommateurs yi man ci bénéficier waaw donc loolu daal nekk na problème boo xam ni jusqu'à présent gisaguñu lu ko réglé ba léegi daal prix yi nga xam moom lañ doon jaay ba nëga moo nekk ci dëkk bi moom la ñuy jaay ñu di ko déplorer nag ñu di ko déplorer parce que nag loolu je crois que bu fekkente ne direction du commerce aussi fixé na ay prix waroon nañoo mën a topp ci vraiment ci commerçant yi muy grossistes muy demi grossistes yi ba ñu respecté prix yooyu parce que nu mu mën a demee rek prix yooyu après tout ni ñu ko jàppee rek ak nu mu mën a demee rek am na wàññeeku contrairement li fi nekkoon te te loolu nag moom lañu ñu gisagul ba léegi. waaw effectivement loolu aussi maa ngi ci génne léegi réunion alors retraité yi bourse di travail parce que retraité yu bëri daje nañu foofu réunion lañ fa amaloon alors euh, man ci biir retraité yooyu. nga xam ne njaaykaat moo ko jiite euh, man maa ngi yore commission consommation ci biir retraité yooyu mais président de la république dafa waxoon ci lu leer une augmentation de dix pour cent ba mu ko waxee léegi defe naa ne war na mat ñaari weer ba ñetti weer ñu ngi koy door a appliquer weer bi mais defe naa ne président bu demee ba yëkkati ba ne dix pour cent dinañ ko jox retraités yi dañu yaakaar ni kooku amul xeej ak seen ñëpp lañ koy maasale jox leen ko ndax yaakaar nañu lu ñu budgétiser la ba pare mais tey seetlu nañ ni tey jii la poste di door a fay ñi nga xam ne ñoo am virement ak ñi nga xamante ni ñoo fayeeku deme ni man Orange Money wala Wave waaye bari na ci ñu bëree bëri ñoo xamante ni kenn jotu ci 10 pour cent yi ñi ko jot daal alors pour centage bu ndaw la bari na ñoo xam ne ko laaj mu ne jot naa ñii ni jotuñu mais loolu nan la mën a amee président la république ni dina def benn augmentation 10 pour cent jox ko retraités yi tey alors ñu seg jox ñi leen neex ñi ci des ñu bàyyi leen mais ça c'est un problème boo xam ni kenn xamul nu mu demee hmm? loolu nag ñu ngi koy yuuxu ca kaw di wax ni retraité Thiès yi ñu ngi interpeller le président Macky Sall di ko wax ni 10 pour cent yooyu c'est pas effective retraité yu bëri ñu ngi ci biir dëkk bi en commencé man mii wax ak yow jotuma di pour cent te bari naa ci morom ñu ngi ni réunion lañ jóge ñu ngi ni bourse du travail jotuñu dara li ñuy delluwaat di ko yuuxu mooy sonn nañu ci problème mu prise en charge ay retraité yoo xamante ni bat na ëpp na at au niveau de l'hôpital régional te man maa ngi hôpital régional ci conseil d' administration bi laa bokk waaw 87 million la IPRES yoreel hôpital régional ba léegi hôpital régional rejeté na lépp lu jëm ci lettre de garantie boo xam ne waroon nañ koo jox tey retraité yi ñu man di faju retraité bu feebar fi mu ne da ngay dee boo demee hôpital régional dañ lay rejeté ndax ñoom dem nañ ba ne dañu àttanatuñ ko waaw hmm? plan Sésame rek moo fay dox te c' pas effective donc loolu nekk na loo xam ne ñoo ngi koy jooy pour que Macky Sall yëg ko xam ni retraité Thiès yi sonn nañu retraités yi sonn nañ ba fa sonn yem tey jii boo demee alors bureau euh, IPRES bi nga xam ne moo nekk fii boo demee com boo feebar boo mën a am ñetti comprimé lañ lay jox dara amu fa ci garab ñetti comprimer lañ lay jox alors te yow ku feebar di borom kër waaw mais mais dara te loolu yëpp yaakaar nañ ni vraiment lu toll ni IPRES conseil d'administration bi nekk fi Racine si jiite ko te bis bu nekk retraité yaa ngi am ay problème mu faju retraité yaa ngi dee rek waaw parce que amuñu lenn lu ñu fajoo ku ci amu mbokk mu la faj doo faj boo ñëwee hôpital régional ñu dàq la mais couverture sociale bi moo amul boo ñëwee hôpital régional couverture social néew fa te ku ne xam na hôpital régional ni mu deme ak situation ba nga xam ne moo fa nekk c'est un problème hmm? mais vraiment loolu dañ ci interpeller Macky Sall di ko wax ni hôpital régional retraité bu fa ñëw ñu dàq la waaw hmm? jëlatuñu benn retraité ku fa ñëw lettre de garantie dañ lay dàq boo demee dixième la même chose dañ lay dàq vraiment loolu c'est regrettable comme une région comme Thiès retraité yaa ngi dee rek parce que amatuñu fu ñu fajoo waaw fajuwuñu wëlbatiku 10 pour cent yi nga am moom la ñu yaakaaroon mu jox ñu ko 10 pour cent yi mu ngi nii ñu bëri joxuñ jotuñu ko c'est ça le problème sepp yaa ma neex la ñu def jox ñi leen neex ñi ci des ñu bàyyi leen loolu nag dañ koy yuuxu ca kaw te nag retraités yi jël nañ benn décision nee nañu dañoo wax dinañu wax ak président di ko déglu ba xam dinañu rétablir la vérité buñ ko deful nag dinañu marche bu dee dañuy joge Thiès ba Dakar dinañu marche dem ba Dakar waaw parce que parti ñi nga xam ne ñooy retraités yi nga xam ne ñoo plus représentatives ñoo nekk ci dëkk bi ñeneen ñiy wax nag dañuy wax ngir seen bopp rek waaye retraités yi li ci ëpp tey ñoo daje fii bourse du travail te loolu rek moo tax ñu daje fi mais jusqu'à tey tey ñi nga xam ne ñoo ñooy fayeeku virement poste ah nga xam ne alors dañ daanañ leen fay le huit wala le dix tey ji defe naa ne tey le seize xaw ma dix-sept ñu ngi door a commencé fay tey boobu ba nag ñu ngi baagante ñii ngi jóge bàyyi xombal ay Touba Toul ku ci nekk yaa ngay am fooy jóge du ñu leen fay boole ko lii nga xamante ne alors ñenn ñi sax alors moom la ñuy yaakaar di seen loolu ñu leen di fay nga xam ne alors dañ koy jël di ko fay ñu ñàkk ñi xaw ma nan la loolu tuddati sax nuñ koy tuddee bourse bourse familiale boobu baagante nañ ba bëgg a dee boobu ba nag ñu ngi rang pos te fu ne la ñuy jóge tey ci région Thiès mais saa yu ñëwee ñu leen dem leen ba ëllëg pour ñu fay len bourse du travail ba léegi fay ñu leen seen bourse yooyu te yooyu yëpp bourse yooyu sax yaama neex lañ ciy def bari na ñoo xam ne inscrire nañ leen fii ci dëkk bi parce que ba ko président di yëkkati daf ko yëkkati pour ñu jox ko ñu ñàkk ñi ñi nga xam ne dañoo ñàkk wala ñi nga xam ne ay ay ay néew ji doole lañu ñu di leen ko jox waaye tey doxalewuñ ko noonu waa maire yi dañoo segg def ko problème mu politique problème poli dangay gis ñu ay jeeg ju ndaw joo xam ne dañuy dem di fayeeku ji nga gis ay xale yu góor yoo xam ne demuñu fenn amuñu sax plus de vingt ans dem di fayeeku ji c'est pas normal ñu dem di inscrire ñu leen neex jox leen ko ñi nga xam ne ñoo ko yeyoon joxuñu leen ko fii au niveau de la région de Thiès kon bourse de familiale boobu na ko président dégg xam na mu bëggoon ñu doxale ko pour les diminuer joxewuñ ko noonu yaa ma neex rek lañ koy joxee ci biir dëkk bi